may ñu rek ñu sant yàlla euh, vraiment ñaanal sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi lool te wér di santaat bu baax ci ni ñu amee euh, chance di remercier le président de la République ba vaccin yi ñu mën ko am à notre portée ndax ñëpp xam nañ mbas mi li mu fi faat xam nañ li mu fi yàq sur le plan économique fardeau bi mu fi créé lépp donc ñu ngi doon euh, wax di sonn di sensibiliser di def vraiment beaucoup d'activités pour nit ñi di respecter mesures barrières yi waaye doyul woon donc yaakaar nañ ne vaccination bi bu ci yokkoo mën na génne mbas mi ci àdduna donc bu yàlla defee tey ba mu am ba yegsi si ñun dañ ciy sant yàlla donc tey ñu doon def lancement bi avec euh, autorité administrative yëpp muy préf sous-préfet de l'arrondissement de Ndam le maire de Touba ak euh, les directeurs d'hôpitaux ak képp kuy liggéey ci santé ci wàllu ci wàllu santé fii ci Touba ñun ñëpp ñu àndandoo wax fa dëgg yàlla joxe exemple ndax nit ki man pour man bu la buy dugg ci pax ne la kaa ñu ànd war ngaa rafet njort te xam ne bu fa dara nekkoon du fa dugg Euh, de façon aussi simple. stratégie bi ñu jëkk a def mooy jiitu ci benn ba pare fas yéene ci gox-goxaat yi fu ci nekk ñu woote kilifa yi fa nekk waxtaan ak ñoom euh, wan leen ICP yi bu ñu demee seen gox dinañ woo euh, seen chef de quartier yi ñoom seen bopp ñàkk ñu gis defaat sensibilisation continuer du ñu tàyyi te xam ne fi mu ne nii tey jii man bu ma vacciné woo mën naa musal sama bopp waaye am na ñu ma wër ñoo xam ne bu ñu muccul. keneen mën nañ yóbbu keneen te ñun suñu objectif mooy wax fa dëgg yàlla génne ko ci àdduna bi donc duñu tàyyi duñu noppaluku dina nekk ci paj mi waaye insister waat tamit ba ñëpp ànd ñàkku ba pare continuer mesure barrière yi ba ba suñu borom di ko génnee ci àdduna waaw ci lim bi loolu laay wax ma ne vraiment personnel de santé que ce soit ñi nekk ci hôpital yi ñi nekk ci centre de santé yi poste de santé yi te même structure privée yi cliniques yeeg ñoom ñëpp ku ci nekk da nga envoyé sa liste ñu compté ko saytu ko ba mu mët recevoir nañ dose bu leen mët sëkk léegi nag am na beneen bu ñuy xaar ci la ñu war a jël euh, ñi am juróom-benn fukki juróom-benn fukki jëm kaw léegi loolu laa dañuy defee stratégie ci biir structure yi dina am ci am poste yi waaye am tamit euh, bu dose yi doyee dinañ wër ci gox-goxaat yi ci école yeeg ci daara yi dem fekk nit ñi ñàkk leen incha allah.